ba tey ci tefes Soumbédioune ñaam am kilifa gun fu fekk bëgg waxtaan ak moom ci li nga xam ne ñu ngi koy dégg ci géej gi kilifa gi nuyu nañ la. sant nan la ziar nañ la. tur wi naka la. Omar Diagne Omar Diagne Sow président UNAPAS local bu Soumbédioune. sëñ Omar tey ma fekk la fii ci tefes gi ni nga ko waxee nga jiite UNAPAS bu Soumbédioune. Mm-hmm. tawat gi nga xam ne ñu ngi koy dégg ci géej gi. caaroy sur mer ñu gis yenn lébu yi tawat gi dal leen. Mm-hmm. ba yenn média yi ne jën yi daa am feebar ba kenn ñemeetul lekk jën. yéen ñi nga xam ne ci géej gi ngeen di xëy di ci gont di ci faj seeni soxla lan ngeen di wax ci loolu. xam nga senegal dafa am lu fi am. bu ñu nanguwul laaj ñi jàng. ñu laaj ñi xam géej. jën bu lekkee lu ko war a rey. du def cinq minutes te rey ko. géej jën géej du am problème. dafa am baraka bu ci yàlla def. géej dafa saf sàpp ak xorom. dafa saf sàpp ak mbeex moom la wax géej. bon jën bi bu génnee boo koy togg di nga ko xorom loolu mbiru yàlla la suñu borom. waaw loolu ñuy wax noonu si jën yi noonu nag vraiment amul. Hmm. amul parce que man du ma yeewu te duma lekk jën. am na lu sama yow gars yi allah ni nga leeree nii yow yaa lekk ci jën yi. Eh, bu baax. ak ah, ah, gars yi li nu wax ci jën yi. Eh? wax waxu ñu nag waxuñu ko ndax dañoo bëgg xool ndaxam am li gars yi di wax dëgg la di ma déggee dañuy setal seen der. du journaliste si tas xibaar la rek. Hmm. xëy na tas xibaar boo xamul. te tas xibaar bi yëpp mooy laaj nit mu wax mën nga nekk fii di dem géej di ñëw te doo xam géej doo ko maîtriser géej ak li ci biir mais comme dañ si juddu ñu ngénte ñu si suñuy waajur juddu si ñu ngénte leen si ñun géej lañu am. kon war ngaa ci géej. waaw dama war a wax si géej nag. léegi ci kaw loolu jamono ji ñu génn ndax dañuy dégg ñenn ci mool di ñaxtu ne dañuy dem ci biir géej gi. Hmm. waaye dañuy dem ba ñibbisi duñ mën a sax jàpp genn kees. ak licence yi nga xam ne état bi da koo jaay yow mi nga xam ne yaay ci géej ngay dund ni nga ko waxee yàgg ci lan lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga Sénégal suñu état yi suñu état Sénégal yi euh, ni ma ko mën a waxee ay golo la ñun jàppee. waaw depuis 1960 président Senghor mu ne 60 000 habitants lañ euh, pêcheurs lañ président Diouf mu ne 60 mille lañu. président Wade mu ne soixante mille la ñu. président Macky mu ne soixante mille la ñu. xanaa kenn du ci juddu wala kenn du ci ñëw dooleeku. merci kon mille depuis mille neuf cent soixante amul benn nappakat bu juddu amul benn nappakat bu dee. waaw loolu de boobu ma waaw waaw waaw ko man teemaa dem dooni nappakat boobu. waaw xam nga tey jii géej gi géej gi ngay gis nii ñun géej gi lañu am moom la ñu yaakaar xam nga ñoom bu ñu demee ba ne dañu signé ay bateau yoo xamante ni. dañuy maal mbaal ton bi ak waxandoor bi parce que du wàcc si c'est faux ñoom xamuñu loolu ñun bi ñu nekkee xale fii la ñuy taxaw si pere bi di sànni caas di jàpp ton bopp boobu Sénégal xamuñu tibb ay milliards si géej te milliards yi ñuy tudd tibb si géej gi nappakat yi dañ ko dul gis gisuñu ci seen bopp moo tax fi mu nekk nii lu mu jar dina ko jar lu mu laaj dinañ ko def bañuñu si dara nag. lu demee nan. pour suñu géej baax pour suñu fitir génération am luñ fi fekk ñun bañuñu si dara fowuñu si réewuñu si politique uñu si ànduñu seeg benn leaderu politique dinañ ko xeex ba lu mu laaj dinañ ko def loolu ragaluñu loolu euh, ci kaw loolu loolu ragalu leen ko ndax libu moom ko kenn xamu kook ragal loolu moom am nañ ci astuut lañ ci xam mais ba tey damay gis euh, damay ñëwaat ci feebar bi hmm. Soumbédioune ñëw naa fekk fii jën. Mm-hmm. gaal yaa ngi teer. Mm-hmm. te ñi ma ci laaj yëpp ñoom nee mu gisuñu tawat bi. waaw tawat bi loolu benn uh, kii la maa ngi ko doon seet sama téléphone sax pour wan la ko ah. mais loolu amul sens. xam nga ah, loolu non amul sens xam nga information la bu mal dëgg la affaire bi feeñ na peut-être ci benn deux jours. Mm-hmm. si ay quelques mool. si ay quelques mool feeñ na si. ay quelques mois ñu médiatiser ko noo xamante ni alors que c'est pas vrai Soumbédioune fii tey jii dalu fi kenn bëri na dëkku tefes yoo xam ne dalu fi kenn quelque mois la yoo xamante ni ñoom la affaire bi dal mais loolu heureusement ñu si féliciter encore le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bon nappakatu Sénégal dañu am benn yëg-yëg bu bees bu ñu am ci moom xam nga ñu ne fii tolof tolof a ngi fii une heure et demie le ministre de la santé njëw njëkk a teew loolu dafa rafet Ablaye Diouf Sarr côté boobu xam nga ñun boo ñu yëgee rek ñu yëg la waaw loolu la rek Ablaye Diouf saar ñu ngi koy sant ci loolu di ko ci gërëm bu baax xam nañ ni mu ngi gestu sénégalais yi te bu àdduna doxee ba mu dox ba jege Soumbédioune dina xam ni fekk na fi ay xaritam yu ko bëgg lool